77 618 99 99 Saint-Louis 77 478 92 92 C'est le cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Seye borom taw ki nga xamanteni lumu gan dara du ku sanu ndara leen ak jàmm te rek leen nee naa leen ngeen fi fek ganu ndar yi de dañu xawa sik gan yomb na mu ñeul ey ganu ndar gan yomb naa mu ñeul ey ganu ndar de mu ganu gan yomb na mu ñeul te leen sol yore kër gi dafa man su su boobu rek damay entraînement lii mooy appuyer le dos moom moom laa doon def nii loolu yaakaar noonu lo lo bi lebih lama ban la anak kan ana kan kan lan laa yellu waaw lan lan lan nga gis ma yellu lan nga gis ma yellu dua. déedéet waaye soo ci mënee toog faj sa feebar bi nga toog ginnaaw suba doote nañ fi ndaje lu mag ndaje loo nit ñu dëkk ci gox bi yépp dañ cay bokk ndaje lu mag xam nga gox bi dañ ko war a bale dex ji salte na salte goo xamante faaw nit ñu fi dëkk ñi fi dem di dugg ak feebar bu bare de yooyu moo waral ban la laa de lii nga ne waaw yaay doon yaram nii la daggoo nii la daggoo kii di yow accam ba yow kii nay kii kii nay laal sër déedéet lii baax na lii baax na non sër bee tax xam nga sër du tee du tee sër yi ñoo tudd noppale sër boo ko sëroo sa taat day mbax ne tax da ko rek taw ko kilifa nga seri moo tudd noppale waxu woddoo day nooy nepp yow yi façon dagg mooy yan façon dagg la ah. kay xanaa ki ko doon dagg xanaa da eh, doon a defar mbir e ardu mi na bàyyi jind tey tey tey woddoo seri? sëriñ mooy noppale xam nga tëru sëriñ yi waaw yi mooy <laughs> dalay tas day tas allahu akbar la di nga ci cas sama point yéen lan moo tax ngeen nekk càngaay. <laughs> yéen lu tax wàllu xew. ngeen nekk càngaay kii sax naa dox. yéen lu tax ngeen nekk càngaay. Eh, eh, eh, eh yow lan la. lu tax ah lan loo loo xew. yéen taatu ardu ngeen xool. dooral taatu ardu ngeen xool. waaw waaye waaye kooku ñu waa ñu naan yaa ngi ñu xool ànd yow yaa ngi ñu xool ànd dooral xanaa da ngay xool ànd yow. da ngay xool ànd yow waaye fot see waay. yow da ngaa feebar yéen da ngeen a xooj. ñoo tay yéen da ngeen xool moo tay dal. hee hee. Eh. accal. dafa yeggal ñëwal. dafa yeggal fii. Ardo wàccal fii. Ardo wàccal fii. Ardo kaaw la kaaw wàccal fii. dama juum sax ndax lu tax ngay xool taatu Ardo. lu tax ngay xool yow. da xool nu xool. ku la moom lañ doon. Eh, dafa xool nu xool. yaa ngi yoo. illallah Muhammadu rasulullah nekk feebar bii lii la yéen virus bii moo leen dal yaa ñu gën a feebar fii nga soogoon di xool ñaan ko nii la mel a mel ndun bi nii la mun a mel laa ilaha illallah hmm? lan moo nekk seen tuuba yi li na sa tuuba déedéet changé ngeen couleur yow war a woon a tudd ni tudd man duma bañuma si dara mun dooma ñëw nga fab yow waaw dama ko. kan moo koy fab. mën naa koy fab maa ngi ndayam wala maa bàyyam dafa mën a tëb mënul tëb buy tëb muy damm kabal. mënoo taxaw. dafa soxante. ay amoon la waaw. waaw waaw waaw yow yow yow. ragal ko voilà. waaw na nga fexe ba gis Ardo rek. da nga fexe ba gis ardo fii ana ardo ana mu ñëw di root maa ngi woon kaw da xool ma xool leen doon xool ngay wax xale bu mool da nga amuloo sax looy ruus ngay wax xale bu mool amu sax looy seet doroom gaaju ni mu mel ak yow boo fii ndeka man virus Ebola lay fekk fi yéen yéen rew virus de la corona yow yaa rew virus yëpp ndax fii nga yëg di xool ñuy xool ex de corps sama jarbaat lan lay xool may ma jàmm nga sama lan lay xool sama pédophile pédophile nga pédophile waay noppi waaye pour may noppi dama ko ragal pédophile nga da nga doon xool nuy xool ñun ñëpp a xoolandoo ñoo tolloo yow tey bëgg a violer sama jarbaat yow da ngay bëgg a violer sa jarbaat yow man yow waxoo dëgg waxoo dëgg yow lu ma wax nga wax waa yow waxoo dëgg yow waxoo dëgg lu ma wax nga wax loo wax ma wax li nga def laa def ñoo tolloo ni ko mara mara yow caka bu mag nga yow. yow doo rek danga rus yow doo eh, rus yow caka nga yow <laughs> amoo looy seet. yow doo eh, ca ca sama xon ba ma yow. yow yaay naka da lay napp yow waaye topp na amul nappa dara laa wax. ah tat ardo yi ngeen xool. colli ngeen de. ah gën a colle. colle yow fii nga koy ko. colle fii nga koy ko. colle. <laughs> ñaawaay bu doy bi yow. <laughs> yow danga rus rek. bokkul fële. Eh, demal fa ca des. rombal fan fan laay doy demal man. demal waay wala bomb nga ba weex demal day xam. Ah! <laughs> xam naa mu neex nga réesu nii. <laughs> <laughs> yox yox door yox. doo rus yow gàcce nga am go xam. damal waay noppal fële waay damal fa ca des. sa bakkan bi mel ni dajaloo yow. sa kanam gi noro nawe. cim sa bakkan bi mel ni. yow doxal yow. xam rus nga yow. fu ñak jom ñàkk fayda ne musuma ko gis yow kana kana kana xamu dërem sa kanam gi kala téru tap hmm. hmm, hmm, rek na paté bu la nappee rek nga ni rek arrière kii da la man da doon yërnu ñu yërnu no tolloo dafa gis nu gis waaw fi la tok di gis taxaw fi di gis yam kep hmm waa kay mhm, dama tuuri ndoxam sang waaleel sa denk ma dem ne ci ganu dari ganu dari eh yegsi nga biir Magana ngi nekk ñëpp fàtte dañuy teral gan dara du tàkku sànnu ndara da leen ak jàmm te de dañoo khawasik a gan yomb naa mu ñël gan yomb naa mu ñël ey ganu ndar yi eh. de yomb nañu gan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 77 618 99 99 Saint-Louis 77 478 92 92 C'est un cabinet médical traditionnel C'est Medoune borom taw qui ki nga